waaw li nga xamante ni moom lañ doon moom lañ doon wax tey ci français moom la ñuy tënk ci wolof parce que tey ñun étudiants yi li nga xamante ni tey ñu ngi koy dund derrière mascarade bi nga xamante ni euh, l' administration ministérielle ñu ngi koy def ndaxte certes grève parti yi moom moo tax ñu organiser point de presse mais tey grève bi li mu ëmb ci boppam moom moo moom moo bëri tey grève bi tax na ñi doon depuis le quinze novembre les étudiants de la promotion 8 de la promotion 9 de la promotion 7 commencé woon nañ di def seeni i seen examen mais bi grève boobu noonu amee ba tey dañoo gis abandon carrément ci examen yi nga xamante ne moom lañ doon def tey étudiant bi nga xamante ne day jàng te deful examen tey gisuñu njariñ loo xamante ne tey jàng bi tey dinañu ko dinañu ko amal bu fekkee dangay ngay jàng te tey kenn du la kenn du la kenn du la évaluer ci li nga xamante ne moom ngay moom ngay jàng tey promotion 6 ça fait de cela 7 à 8 mois ñu ngi toog en vacances ndax lan kenn publier gul seen liste sélection en master jàng nañ ba pare seen licence mais master bi tey dafa nekk loo xamante ni ñun instant ñëpp dañoo toog di leen xool parce que xamaguñu tey ban futur ñun lañ am ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo fi nekk di jàng muy promotion 6 muy ñeneen a ñeneen ñi nga xamante ni les autres les autres promotions les autres promotions lañ bokk tey mën nañ ni tey étudiant UVS mën na jàng trois ans ba pare licence am te carte étudiant du ko am tey mu te mënuñu xamuñu tey ñun suñu bopp tey suñu jàng bi fan fan lañ koy fan lañ ko fan lañ ko wékk ndaxte da ngay toog examen ci boppam dañ koy programme bu grève amee ñu annuler ko géng deux mois mi ngi nii ñi ngi toog mënuñoo mënuñoo def suñu examen tey ñun ñooy la seule université tey boo xamante ni gisoo ñuy xeex ndax bourse gisoo ñuy xeex des choses pécuniaires mais tey boo ñu déggee ñuy wax rek c'est parce que suñu xol dafa jug parce que toujours domaine pédagogie la ñuy xeex suñu jàng suñuy outil de travail ñu koy ñëw ñu koy indi temps ba tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàll muy lan euh, la promotion trois tey dañoo am problème encadreur tey nga dajale leen il va falloir UVS ci boppam xam ou bien revoir les critères d'orientation yi nga xamante ne moom la ko ministère bi ministre bi di jox parce que bu ñu demee ba master tamit ay problème encadrement la ñuy la ñuy am da ngay gis ku jàng ba pare du am benn professeur boo xamante ni moom moo koy encadré te tey bu ñu la encadré wu sa master kenn du ko sa sa sa thèse li nga xamante ne tey moom ngay soutenir sa soutenance kenn du ko prendre en compte parce que tey il va falloir l'aval bi nga xamante ni ki nga xamante ni moom moo lay encadré mu mën a joxe avalam ñu jox ko mën a mën a mën a approuvé tey face situation yooyu noonu yëpp ñuy dund ñun liñ bëgg yomb na xeexuñu xeexuñu ndax bourse xeexuñu ndax leneen ak leneen li ñuy xeex tey ñun ñoo ko ñun ñoo ko walloo parce que c'est dans le domaine pédagogique tey pédagogie bu amul mën nañ tëj tey université yëpp waaw ndaxte mënuñu gis ñoo xamante ne dañuy jàng kenn du leen mettre dans de très bonnes conditions parce que tey peut-être tey Eno Thiès lañ gis ñun ba léegi ça fait euh, huit ans ou même sept ans ñu ngi toog di réclamer tey suñu suñu Eno ñun ñun ñu koy defee noonu la ko yeneen yeneen Eno yëpp di defee Kaolack ak feneen ak feneen tey ñun du ñun rek tamit ñu ñoo téye di def point de presse bi tey ñëpp au niveau national sur les 17 Eno ñu ngi toog di def di def point de presse c'est quelque chose boo xamante ne ñun ñëpp tey dañ koy déplorer doonatul nag leen loo xamante ñun dañ koy xam rek di ko fajal suñu bopp mais tey dañ koy wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy opinion publique bi ñu mën a xam ñun tey suñu papa yeeg suñu yaay xam seen doom yi lan la ñuy dund au au vrai merci beaucoup